bokkeen tax na Yatal Vision dal ak jàmm ci xibaar ñu di ko yéen ci la gën a fees ñu daal di koy door nag ak ba jafe-jafe ba nga xamante ne bii nag ma ngay daal di am foofee ca groupe Walf TV foofee nag ginnaaw émission boo xamante ne bii maa nga fa doon am Pape Sène ak Omar Gueye ginnaaw ba nga xamante ne bii nag ay chroniqueur lan foofee ca Walf TV ci lan daal di yëkkati ay kàddu nag daal koy teg ci kaw Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla nag kàddu yooyee jàpp na ne lépp nag dara du ci dëgg ba tax nag mu daal leen di door ab porte plainte nag daal di plainte nag ngir yóbbu leen ci yoon ngir ñu leeral nag mbir yooyu nga xamante ne bii waxal nañ ko Abdoulaye Sylla moomee kàddu yi nag bokk na ci mbirum jam ñaajo ca travaux yi nga xamante ne bii ña ngi ko fay amal ak gàllankoor waaye nag ak ak njuuj njaaj luubal ju bëree bëri joo xamante ne bii nag foofee ca jam ñaajo lépp nag fa lay tukkee loolee nag ca régime bi nga xamante ne bii nag ñoo fi nekkoon ca la daal di ñeel loolee nag ñoom lan loolu lan xamle ba pare te jël alal ju bari nag jox ko ñi nga xamante ne bii ay tiktokeur lan wala ñenn ci ay influenceurs yi ngir nag ñu daal di koy defal ay vidéo loole nag tax na ba ñoom ñii nag ñu daal di ci yëkk ay kàddu nag muy Pape seen ak Omar Gueye loolee tax na ba kii di. Abdoulaye Sylla daal di yëkkati ab plainte nag teg ko ci seenam doo du ñu war a wuy ji nag foofee ca yoon kii di Cheikh Niass nag mu mel ni jàqar bees na ko sax ca baaraamu tuuma ca mbir mu mel noonee ndaxte mooy Petrop Walf TV loolee nag tax na ba kër ga nag fi mu toll ni tembe nag ñu daal di jàpp ne ñaar ñooñee war nañoo wuy ji ci yoon ca na mu gën a gaawee